tey ñu ngi fi ci Cambérène quartier Mbacké mhm. benn jamono mhm. fan yii yëpp ñu nekkoon ci di dox ay yitte maanaam pour setal suñu gox eh. suñu commune gisoon na terrain mu meroon euh, dégg jéggi woon na daal jamono yëpp ci doon dox pour set setal ko comme mbir mi mën a rafetaat mu meroon bu ñu ñëwee set si la nga jóg sol say dàll mais bu ngeen taxaw dinaa ci taxaw ak président nga xam ne moom bu ñu jógee moom dafa jóg jëm bi moom nañ ko defar ndax suñu koñ la léegi ñu ci doon ñaar woote yëpp ñu ci doon laaj sa xalaat mbir mi ko gisee ak continuité bi naka lay demee ci waa loolu yëpp waaw incha allah daal ñu xool ñu xam ci sa xalaat daal incha allah. waaw sëñ Abdou Ndiaye rajo ñoo ngi sant yàlla di Seydina Aliou Mamadou alayhi salaam ñu ngi nuyu kilifa koñ bi yëpp. Eh, di nuyu délégué de quartier bi waaye di nuyu Seyda Madione bi nga xam ne mooy président ASC Jamono donc responsable terrain bi ñëw fekk leen fi yéen jeunes yi jeunes koñ bi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi ñëpp taxaw ku si nekk rek râteau peel ak lépp loo am rek bale indi setal koñ bi lii nag eh, dafa am solo ndax participation citoyenne la xam nga nguur mën la sax yor yetam bi dóor wala mu yor amandam ah, waaye tey nit ñi xoolatuñu loolu tey yet boo mën a yor tey dañuy dañuy taxaw jàmmarloo yow waaye nag waa koñ bi bu ñu jógee ni ay mbokk bokk koñ bi dafa yeewoo bokk jàkk ji bokk lépp bokk xew yi muy bànneex muy naqar ñenn ñu jóg suba ba ngoon si naaj bi taxaw di ratu di bale ñi toog war nañu xam ne e eh, war nañ ci jàpp loolu moo gën a am solo sensibilisation maanaam eh, ragal si yàlla rek ndax amaana bu la nit ñi sax bu dee guddi muy bëccëg waaye yàlla gis ne la te nag dëkkandoo dafa am solo ndax dëkkandoo àq la tey lu fa mënti xew tey balaa ngaa gis say mbokk yi ñoo xam fu ñuy jógee say mbokk say dëkkandoo ñooy ñoo jëkk ñëw donc moo tax lii ngeen def dafa am solo donc na si ku nekk def jàngat jàngat bi mooy eh, bul lor sa moroom bul lor sa bopp waaye bul lor sa morom mbalit oto baa ngi ñëw oto bii ñëw ñàkku bi Cambérène oto yi fiy dugg duggul fenn ñu ñëw ñu ngi ñëw tous les jours donc war nga mën a téye sa sa mbalit ba oto bi klaxonné nga ñëw mu jël ko yóbbu ndax ñëpp moom la ñuy dem boo génnee fii dem ba cité Djily Mbaye wala Nord Foire wala yooyu ay kër kër fa nekk waaye doo fa gis mbalit te ñooñu dañoo am mbalit comme comme ñu fi amee mbalit léegi nag comportement nit ki nag moo des nit ki day bëgg lu baax set si set si si si si jaamu yàlla la bokk waaw mbalit ñëpp koy am waaye doo ko gis te pourtant oto yi dem foofu ñooy ñëw fii waaw pour que comportement yi mën a mën a wute donc loolu nañ ci bàyyi xel ñu bëgg lu ñu bëgg xam nga mën nga ñaaw waaye nag ñu xanaa yaa koy teg sa bopp mën nga bañ am dara waaye bëgg nu set ndax oto baa ngi ñëw oto ñàkkul ñëw waaw ñun day ñëw ba fële donc yéen taxaw leen seen koñ surtout xale yi waaye am nañ si yaakaar ndax lii ñu def tey barewul ñu koy def tey depuis booba ñëw ngeen kër ga def délégation ay yoonu yoon day wane ne am ngeen pas-pas ñun luñ ci mën incha allah daan ci jàpp lu ñu mën daan ci jàpp ba fii mën a mel ni meloon parce que yii ñaari at ñetti at yii la waaye mosul mel nii mosul mel nii waaw loolu nag tey xew yaa ngi fi dañu am ñu leen seet si ak yooyu yëpp donc tey war ngeen man defar seen cadre de vie ba ku ñëw xam ne kat fii kat ay ñu ci fi dëkk ay doomu aadama ay jullit ñoo fi dëkk parce que jullit dee dëkk fi set waaw donc gën a sensibiliser bu leen si xeex bu leen si xuloo waaye sensibiliser waxtaan ak nit ñi ndax bët bu rusul toj tey ku ñëw gis fii ni mu mel tey suba boo yoree sa paan wala sa mbalit war nga ko mën a rusat fii ndax ku si nekk nag am nga mbalit ku si nekk yaa ngi débrouiller sa mbalit dem donc tey bàyyi ba oto bi dem nga génn xëpp ko jàmbur dem sa yoon loolu cooñ bu rëy a rëy te baaxul waaw donc ñu ngi leen di gërëm encore di gërëm vraiment euh, Mandione si taxawaay bi matériel bi mu indi jàppale leen di gërëm ñëpp ñëpp ñëpp gis nañ taxawaay Pa Seck ñu koy gërëm jabootam vraiment di gërëm ñëpp jeeju bi nga xam ne mooy yore mooy garde terrain bi ñëpp daal vraiment ku si nekk jàpp nga si eh, lii mu am solo ndax bu xol yi àndee rek yàlla doolu xéewal te gis naa ni vraiment taxaw ngeen koñ bi taxaw na ñëpp taxaw nañu et ñu gën a continuer di jàpp si di leen gërëm di leen sant jërëjëf. waaw euh, jërëjëf monsieur le maire wax ji rafet na. ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm. xanaa ñu jox euh, président Seynaba Ndiaye mu am kàddu yu mu ci sànni ndax moom boobu ba tey ñu ngi ci taxaw di ci xar tànk bismillah rahmaan rahim dina la suñ sante yàlla dina si yoon bi da ñaanal ga du gudd ndax monsieur le maire résumé na lépp ñu koy gërëm di ko sant ndax mbir mi si diir bu gàtt rek lañ ko te taxaw na ni mu war a taxawee vraiment dañuy ñaanal yàlla yàlla yàggal taxawaay te ñaanal waa koñ bi ndax sensibilisation bi ngeen def gëm ngeen ni fii seen koñ la lu fi baax yéen a koy def bu fekkee lu bon yéen a si war a taxaw comme ni ngeen def nii bu ko ñëpp defee yaakaar naa ni dëkk bi dina set te li ma leen dénku rek mu am suivi képp koo xamante ni gis ngeen ko oto mbalit ñëw klaxonné mu génn mbalit naka delloo këram na muy Samba ak ma dem bu leen si am benn considération képp koo xam xam ngeen ni kii fii la dëkk te da yàq na ngeen ko dénoncé su ngeen ko dénoncé amul lu ñu si xalaat daan woowaa c'est du dañu war def ñu def chef de quartier yi moom dafa absenté parce que war dafa war a dem si benn mirage loolu moo ko tee ñëw mais ma bëgg ngeen gën a góorgóorlu gën a takku nekk benn ni ngeen ko defee nii rek saa yu nga ko defee rek li ngeen bëgg di ngeen ci tegu si yoon du ngeen am benn échec gërëm ñi nga xamante ni mooy moom mbokku transporteurs yi nga xamante ni ñu ngi fi saa yu ma leen wooyee muy guddi muy bëccëg duñu hésité tey xool matériel bi ñu déployé fii si diir bu gàtt ñu def si liggéey bu ñu liggéey lu am solo la ñoom it dañ leen ñaanal lépp li nga xamante ni ñu ngi koy def yàlla yokk seen ak Joro ne ni dañ koy def si Cambérène bu ma boo xam te li njaga mbay la yàgg na plus ko ko gërëm sant ga tax taxawaay taxawaay nag mi ngi nii seen maire la jàppale leen kat taxawoo leen lu ngeen fi gis moom tëjul numéro mhm. lu ngeen fi gis jaaduwul woo leen kat du tëj portable am 24 heures sur 24 te fu ko waaye soxla xeebul kenn dina ñëw def na ci war ci gàttal daal loola amul mu te maaleykum maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di gërëm kilifa yi fi taxaw tey di leen euh, gërëm ci seen taxawaay vraiment di ñaax rek ñaax rek ay kàddu ñaax moo fi def daal parce que lu ñëpp bokk nañ ko jàpp rek di ko defar loolu daal laa amoon lu ma ci saase képp koo xam la rek xam na la rek seen kuréel daal di ñi tamit yéen ñëpp ngeen mën a góorgóorlu nag taxaw ci am ci fulla am ci fayda ba nga xam ne bu ëllëgee lii fi amoon ko fi am.